asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di nu jàmm fu nu mën a nekk. mbokk yi tay taxaw setlu bi mi ngi jëm ci jëm gi di wuyo serigne mohammedou Lo ngabu mu ndaw ñu fas yéene yëkkatey kàddu yoo xamante ni kàddu yu rek la waye kaddu yu diis la waye kaddu yu tiis la waye kaddu yu ñeewante la kaddu yi nag waxtu wu nekk damay wax ne suma wax wala ñuy wax ñett lan am na koo xam ne day wax ci xalaat yu mag yi yu xew yi di ci bind di ci génn làmmañam di ci tooyal xalimaam di ci wax bu noppee loolu am njariñ lool am koo xamante ni moom li muy def day wax ci xew-xew yi ci xew yi rek lay wax kooku it ku digg doomu la waaye ki ci gën a yées mooy ki nga xam ne day wax ci nit man nag waxuma ci nit waxuma ci xalaat yu kawee ndax sama xam-xam àggu ca waaye ci xew-xew bi rek laay wax xew-xew bii ñu bëgg a wax dañ ciy wax rek ngir jëmm yàlla ak ab yonantam euh, xew-xew bii de ku nekk xam na ne lu tiis la lu raglu la lu yéeme la lu raglu gi ñu ciy wax mooy mbir mi nga xam ne moom la ñuy wax ne di ko ci taqal wala boog ñu ne moo ko def loola du sunu mbir digganteem ak boromam la yàlla mi nga xam ne umpalewul dara moo xam la ca feeñ moo xam la ca nëbbu danga koy bàyyeeg moom te maandu ca waaye mbir mii de moom mii de xam nañ ko yàgg nañ koo gis muy sonn ci lu baax ay guddeem ak i bëccëgam seytaane nag su jógee du ne day dem kar ki nga xam ne dafa jëm ca baar ba mu koy kar walla mu ne ki nga xam ne dafa jëm ca feccukaay ba mu ne moom lay kar wala mu ne day kar koo xamante nii day dem di defi lu bon kooku du ko kar waaye ku muy kar ka jóge ci jàkka ja wala ka jëm ca daare alxuraan ja wala ka jëm ne ko damay dem màkka di joxe ci sama benn farata ñooñu la saytaane di kar ci yoon wi di leen galgal di leen detteel detteel yu mag loola nag bàkkaar la waaye am na bàkkaar yu gën a tiis yu gën a metti yu gën a rëy ci kaw sunu borom sunu borom du bal kuy bokalé ko xamanteni dang koy bokalé di wutal ndend ak yalla sunu borom koku sunu borom fek tuuboo ko dula ko jéggal ta sawara rek lay ta da nga cey sax abadan boko ko tuubul ki nga xamne day wote wo ak ngor jigen koku sunu borom dana ko alak bakar bu rëy rëy rëy lay def kii nan sangara sunu borom dana ko sawara ndax ñaawteef bu rëy lay def waye li nga xamne de moy likal te doomu aadama yi nattuwaay yi nga xam ne am nañ ko suñu ak suñu borom euh, ba xam ne ay nit dëgg lan wala ñu xam ne ay nit ñu baax lan ñaari nattuwaay yi saytaana fexe na ba samp ko ci kaw suuf mu doon ndëndam moo xamante nii wala mu doon bàkkuwaayam boo xamante nii teqatal na ci ay góor yàlla nërmeel na ci narmal nargan na ci ay nit muy diggante li ñuy wax xaalis ak jigéen waaye mbir mii de ku nekk na ko natt ci sa bopp ba xam fan nga toll ci mbir mii ci mbir yii muy jigéen xaalis ak bàkkaar yooyu bu fekkee wóor na la set nga ci wicci rafetal njortu te gën a jaamu sunu borom jëm ci yoon wa su fekkee nag yii am nga ci benn xusi xusi wala benn wokk wokk jéemal a faj sa bopp moo gën ngay ittewoo di jéem a jël mbirum jàmbur di ci jéem faj wala nga jéem di ca nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom ci jamono yonent bi dund ci kaw suuf am na benn jigéen bu mas sa dikk fekk ko ci jàkk ji mu toog mu ñëw ne asalaamaaleykum yonent bi daal di ma nga muuru ba ne lëmbax jigéen <coughs> yonent bi fay ko ak saxaaba yi mu toogaloon mu ne ko yonent bi yàlla bi man de dama def njaalo bëggoon ku ma laabal yonante bi wëlbati ko geneen wet ga mu dikkaat fekkaat ko ci fi mu nekk mu daan ne ko yonante bi yàlla bi wóor bi na yàlla ne dama doon njaalo te jële naa ci ëmb yonante bi ne ko dellul ba kera ngay am doom soxna soosu daal di dem toog ab diir bu ndaw diir bu xaw a yàgg sax daal di am doom dikk ne ko yonante bi amna dom, doom man ñi ma fi dikkoon manela dama la won ba jele ci ab eumbu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko demal nga nampali sa doom ba mu fer mu dem di nampal domam ba dom ji fer bi dom ji fere fek sax bi ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ba am dom, bima mu dom doom ci suba gi rek ca nga la bi ak toyam ñew ci yonent bi ne ko dama amna dom mu demat ñëwaat bi mu ñëwee ne ko am naa doom ji bi mu demee ba nàmp ba fer xam ngeen ne nàmp lu mu néew néew dana diire ñaari at ak nàngam <coughs> mu dikk daal ne yonante bi sallallahu alayhi gàddu doom ja daal di koy joxaale wenn dogu mburu mu ñëw mu ne ko man ñii maa ñëwoon fii ne la damaa njaaloon ba am doom nga ne ma demal nga nàmpal sa doom ba mu fer dom ji nag fer ne mi ngi ni daal di dogu mburu jox ko won ko ne ko dom ji man na lekkal bopum legi yonente bi sallallahu alaihi wasallam gestu kenn ci ci sahaba yi ne kan moy jël jirim bi mu yar ko jangal ko bu ëllëgee ma ngom ñu dend ci aljana kenn daal di njëkkante ci sahaba yi ne ko man na ko jël mu yaral ñen ci sahaba yi ne len dem len bu ngeen demé ngeen atté ko atté rey ñu atté ko ray ko ko rayé ba noppi yonante bi sallallahu alaihi wasallam ñew diko julle jog na ñu ne ko ray nan ko ba defar mu ne defar leen ko ñu defar ko mu ñew diko julle bu mu joge diko julle sayyidina umar japp ci mbum ne ko ya yonante yalla bi da ngay dem di julle ko xamni da don jaala yonante bi mer ba kanam gi ne ko omar giñ na ci yalla ne jigen ji tuup na tuup go xam buñ ko séddelé wa madina gep danan rek wala juroom ñaar fukki jooni nit ci madina danan leen doy seetal njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu yonent bi laaju ko xam na ne ku njaalo góor nga la njaalool laaju ko gën góor nga doon njaalool wala kan moo la ko def wala nàngam ba jonn te yonent bi laaju ko bam ne ko dellul nga dem yonent bi yónnee wut ne xoolal leen ma ko gën kër la dëkk wala déet ba mu toogee ba mu yàggit yonent bi di yónnee wut ndaw ne dem leen seetali ma ko xamut ci moom dara bi mu dikkaatee ne doomam yonent bi naat ko beneen rox su ne ko demal nga nàmpal sa doom mu dem di nàmpal doomam mënoon na faa teggee bañ a ñëw soxna sii di ñëw yi tamit bi mu dikkee ñëw bi muy ñëw lii lépp di baagante di dem xam na ne moom li ko war mooy dañuy rey bakkanam tuub goo xamante ni sa bakkan dafay jóge googu tuub du tuub gu ndaw mbokk li ma bëgg a wax foofu rek si kam ñu baax ñooñu nga xam ne ñoo sell àgg ca jamono yonante bi di jonjoog moom ñoom la jigéen daan fakkastal ñuy jonjoo ñuy def lu mel ni mbir mu mel nii du mbir moo xamante ni nit war naa toog di ci weer nit wala mu ci ree nit wala mu ci kekk nit mbir la moo xamante ni guddi gu nekk ak bëccëgam ku ci nekk mën naa fakkastal lu mat junni ñoo xamante ni dañoo tega ci yoonu yàlla di dem la ca naqari kay mooy weer gii ñu weer ak xaawi sutura gi loola moo du mbirum jullit te jullit du doxe noonu am na ku baax ku nekk fii koo xamante nii kilifa la woon da daan wax na nit su fekkee dafa def bàkkaar rawatina bàkkaar boo xam moom rek la concerné concerné wul keneen bàkkaar boo xam ne kenn kun ko tegaloon daanaka xawoo koo mën a waat bàkkaar boobu nee na bu ko nit defee dafa mel ne nit ku yanu paanu xeer ñun ña di ca coow saa bu nu tegee yàlla wàcceel ko wenn xeer ñu teggi wenn xeer saa bu nu wàccee ñu teggi wenn xeer yan ko ña ko doon wax bi day woyof benn xeer dootu ci nekkati te kan moo mën a mucc ci njaalo na ci say loxoom wala ci bëtam wala ci làmmañam mën a toog ne man mi ba mu juddoo ba léegi mosuma njaalo ci njaalo yu mel noonu mosuma njaalo njaalo làmmiñ mosuma njaalo njaalo bët mosuma njaalo njaalo nopp mosuma njaalo te njaalo yooyu yépp ay bakkaar la yoo xam suñu borom a ngi ko denc te doomu aadama ji mu ngi ko feesal dell nit nag sa bu joge di waye di wone ay bi jambour setan man nako dan nako ñetti dan ndax bi nga nekké di wone ay bi jambour ak di ca wax da ngay wone ne setan da lay wax na la yow ko amo ayib yow mi wax ay bi jambour yu kon amo ayib amo ayib ta bari na ñi randal ay vidéo ak i audio yo xamanteni ñom lan leen ci yarel kenn xamul nu mu tollu jigéen ñi li ñu yor ci audio wala ñu yor ko ci vidéo bu ne woon suba dañ koy teg ci télé RTS bi wala ci rajo RTS bi dana bari ñoo xam ne danañ fu danañ génn frontière Sénégal bi génn dem ci yeneen frontière yàlla rek moo bari sutura kon nag sutura soosu nga xam ne yàlla def na ko ëmbal ëmbal koy jaam kenn warul jël vidéo nit koo xamante ni lu mu néew ne sonn na dara ci lislaam sonnal la sëñ bi ay guddi kooku nga jël ko weer ko ñu yàq àddunaam te képp ko yàq àdduna mu yàq sa àllaaxira képp ko yàq àdduna mu yàq sa Allah. te képp koo xam ne mën ngaa def mbir mi ba noppi mën a tëdd di nelaw wala nga toog di reetaan wala nga lekk di jàpp ne mu ngi jàll wala nga naan jàpp ne ndox moom mu ngi jàll sa xel warut dal yow yaa ngi ci loo xamut yaa ngi ci guddi goo kiit yàlla dafa fonk ab jaam dafa fonk doomu aadama bu bëggul xaawi li yàlla xam ci nit ñi ak i sikk ak i ayib su fekkoon yépp dana xëy wane ko yooyu dana doy te yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee képp koo xamante ni xawwi nga suturay doomu aadama ëllëg yemal yàlla dana la topp dana la topp di xët ba xawwi sa sutura donte dangaa nekk ci sa biir kër sa biir njaboot yàlla dana la fekk xawwi sa sutura kon mbir mi du mbir moo xamante ni yeyoo na ak jëmm ji ñu koy def nii jël ay vidéom jël ay son yoo xamante ni dañ koy def fu nekk ñu tasaare ko fa ba mel ni nit ki doonul nit koo xamante ni sax dafa dafa mucc ci juum wala dafa mucc ci ci ci ci ci ci bàkkaar ak mën a toll ak fu maqaama toll mu muccoo ci ci juum muccoo ci bàkkaar muccoo ci seytaane dal ci sa kaw te xam ngeen ne mbir mii de dal na ñoo xamante nii ku leen ne mën na leen a dal nga ne déet am na koo xamante ni ci kaw doomam la àgg ba ëmbal ko loolu senegal gi xam ngeen ne am na fi am na ko ëmb àgg ci kaw jarbaatam aw ko àgg ku mën a dem ba àgg ci yooyu nag yeneen yu dut yooyu mën na laa dal nii ñu ko def nag metti na ci xol képp ku ko mas a jëflanteeg moom genn bëccëg wala genn guddi metti na ci sa xol ñu koy def metti na ñu koy def sax ci koo xamante ni da nga xam ne ab jullit la wala ab sénégalais la ñu sàng suturaam nii ak xaw yi suturaam ah ku ko mën def sa xol di dal de de man bokuma ci de bokuma ci tam te it sunu borom wax na ne yonante bi sallallahu alaihi wasallam net li nako neena kep ko xamanteni togn nga nit te nit dana togn ba nopi nga tooñaat ko ki xañ na kenn la togn wala ñaar la togn wala ñet waaye da ngaa tooñ koo xamante askanu jambar wo xamanteni te yonent bi salaa salaam nee na dee leen moytu ñaan ak ku ñu tooñ ñaan ak ku tooñ dee leen ko moytu yaa ngi tooñ nit tëdd di nelaw wala nga lekk di lekk ba suur wala nga def dara toog di nelaw waaye jooju nga tooñ moom nelawut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee amul kiiraay lu dox digganteem ak boromam amul kiiraay bu naa ko sunu borom rek diko ñaan rek sunu borom nangu ñaan nga ta sunu borom kat daf na wax yonante bi alquran dana wax ne sunu borom jégué na leen yeen ñi ñaan sunu borom da leen jégué kon nang képp ku mëna am xel mu dal def li ba nopi sa xel dal nga mëna rafet njortu ci sa tay ak ci sa ëlëk ah loolu da wuté na xalaat ak man lol lol, lool lool wuté na xalaat lool lii ko dal nang bu lo lu am la natula natula ñële ñoo ko gënoon fuuf ñooñu ma tudd ñoo yaru ca kippaaru yonent bi ñoo ko gënoon ñoo gën ñu dut moom te loolu dal na leen fakkastal na ay wàllu yu bari yoo xamante ni ñu bari fakkastal ba jonn tey kenn xamul fan la sa mujj di ki moo tax wolof yi di ñaan te ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal mujj gu rafet te yàlla na ko suñu borom digganteem ak suñu borom nag kenn duxu fi lu dul tàllal loxo boromam. ku togn sa borom xam nga ku ko tooñut xam nga sun borom sax kenn ku meuna taxaw na tooñu mako amul waye tout sahaba yi bi ñu ñew ci kiparu yonante bi doonul won ay julit te léegi dañ leen bu ñu laata faatu la leen su yonante bi ne leen seen aljana leer na tuub rek and ak yonante bi di def li yonante bi di digle di bayyi li tere seen xol ñu sellal ko sunu borom jéggal leen sunu borom jéggal leen te njëggal na loolu sunu borom doon def ba léegi jaam yi sax la sunu borom gën a yërëm ci ndax xam na ne da leen a nattoo ay tooñ nattu leen sunu borom nag li ñu indee woon ci suuf képp koo xamante ni jàpp nga ne loolu rek mooy sa itte nga nekk ca la nga man sunu borom dana la ko fay la nga mënut dana la ko yéeneel te dana la ko fay baax ak sunu borom àppuwul fenn xajul ci benn jaam sax sunu borom ak mbaaxam xajut ci benn jaam àppuwut ci fenn nag. te képp ku toog tàllal ko sa yoo wan ko ne sa jaam laa dama juum dama tooñ maa ngi lay jéggulu maa ngi lay tuubal sunu borom dana lay jéggal te du ci xaar ma sàmba du ci xaar ma dem kon nag ñun ñëpp na àndandoo jéggul di ko ñaanal njéggal yi tamit ñu nu xawee suturaam ñu nu xawee suturaam euh, mbir mu ne nag sama yoon nekku ci xaw ma moom la xaw ma du moom xaw ma ndax li ma yor ci sikk man mii di wax ak li ma yor ay ayib doy na ma sëpp may lijjanti ayib yooya doy na ma sëkk may lijjanti ayib yooyu waaye nii nu ko def moom yellut ci sénégalais yellut ci koo xamante nii sax nee na mas na xëyal sëñ bi dara ay maamam sëriñ bi te tiit naa lool ci ku ñi jëf-jëf yu mel nii dañ ci deltu ginnaaw tiit naa lool tiituma ci ngir ne nangam waaye damaa tiit ni yàlla suñu borom euh, daa mën a fayantoo lool daa mën a fayantoo lool lool lool lool ndax ñi mbir mi ko dal kenn fogu ko ci won ci mom ne dana bis dana massa am mu mbir mi mel ni sagam mom ñi ni mom la mbir mi mëna mbir lu mel ni aduna mëna xey xat ci mom aduna bi mel ni wacc lolu tancalo suuf sek asman si di tancalo ci kawam ah keneen ko ne mën na ci muccu de rafet nga njortu te dal nga xel lool ngi taxawlu di ñaan yalla na yalla def kiraange ci mom yal yàlla def ak mucc ci moom yal na yàlla wàcce jàmm ci moom yal na yàlla wàcce kaaraanga ci moom yal yàlla musal ko ci seytaane lépp lu koy gàllankoor te musal nu ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.